dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV cant ak ngërëm ñeen na leen si topp bi ngeen di topp seen bi jaa ngeen jëf li gën a fës bokk si résultat yi nga xam ne jotagul naa génn fële sa Ziguinchor 62 voix kii di Bassirou Diomaye Faye 8 voix pour kii di Amadou Ba mu nekk résultat yoo xam ne moo jotagun génn ni ñoo ngi leen di toppal information yi waaye mbir mu doy waar bi nga xam ne nag jot naa xew mooy kii di Moussa Bocar Thiam mom nak euh, dafa dugg ci bureau 4 bi nga xamne nak fa la voté ñu tëjaale ci si biir bi nga xamne ñi ngi xor résultat yi di euh, lañ mat euh, li nga xamne nak nag mbir yi mu nek mbir mu doy war mo xamne jamono bu yima ngay am. Amadou Ba mom mi tamit centre bi nga xamne fa la doon voté fële sa parcel asani ni mu doy war tamit daat na fay am ndax ginaaw bi nga xamee nak ñongi jima saytu résultat yi presse bi dañ leena mu nekk mbir mu doy waar waaye nag si xibaar yi nu mujjee jot mooy après quelques minutes daat nañ leen di woowaat ñu dugal leen si biir mu nekk mbir mu doy waar moo xam ne jamono bi moo ngi am si bureau de vote yi